waaw ndooy tamit dafa am benn information bu nga xam ne temps yëpp mu ngi circulé ñu ne Ndoye Bane dafa nekk candidat à la mairie de Pire Ndoye Bane yow la moo dugal ci nga naan nga jël mairie Pire. loolu nag da koy laaj waa lan moo tax Ndoye Bane taxaw ni ni ni la loolu da nga koy laaj waa Pire waaw. mais yow daañu la xamee politique daañu la xamee dara yow la moo tax nga jékki-jékki rek ne man damay yow personnellement yow nga jékki-jékki nga ne man dama bëgg dugg ci lii. yaa ma xamewul politique. kon nga bu yàgg mais laajal waa Sénégal xame nañu bu baax politique. politique waaw maay politique ma nekk mais nag sama politique man sama dëkk lay am sama biir Pire dama fa yor benn mouvement bu ñuy wax mouvement wallu waa Pire wallu nag wàllu wàllu ci wolof am na buy luy tekki au secours wallu am na tamit loo boo xam ne sunu wàll la. kër 1960 ba léegi kenn du ñu jox suñu wàll ci réew mi lépp lu ñuy joxe ci réew mi su état di joxe Tiwaawan lay yem wala ñu tëb ñu jox ko waa Ngaay di nga gis état bi ni nii day moderniser les villes religieuses dëkk yu bari am na lu fa état bu Sénégal def lu am solo ma lay xamal Pire googu nga xam ne fa dëkk ku fa sa maam jàngewul ak jàngul jàngewul ka ko jàngal piir la jànge déggoo ma de dañ ni këru diine yi état bi da koy defar këru diine yi état bi nekk di defar jamono jii ku sa maam jàngewul piir ka ko jàngal piir la jànge donc su ñuy defar piir la war a njëkk a defar beddi googu ñu ñuy beddi nag man moom a metti man ba mu juddoo ba tey dañ ñuy beddi ci lépp ci tout dañuy beddi sécurité suñ soxlaa sécurité sun soxlaa gendarmerie Tivaouane la ñuy dem sante Tiwaawan la ñuy dem kiit goo soxla Tiwaawan ngay dem dem googu ñuy dem Tiwaawan jéggaani googu ñuy jéggaani man neexu ma te man bari naa ci ay doomu Pire yu bari yoo xam ne neexuñu looloo tax ñu ñun dugg ci politique bi pour dindi fi loolu li Pire di jéggaani Tiwaawan wala mu koy jéggaani Thiès ñu dem wuti ko indi ko ci dëkk bi yàgg nañoo ñoo ñu am ay président communauté rurale yàgg nañoo am ay maire peut-être ñoom it def nañ seen wàll sunu maam yi def nañu sunu papa yi def nañu. ñun doom yi nag ñoo taxaw pour samp suñu ndënd pour jëkk jël dëkk bi xool li dëkk bi manqué ñu indi ko ci dëkk bi te démarré nañ ko depuis 2012 ñoo ngi ci am na yu bari yoo xam ne piir amu ko woon ci sunu jëmm ju xeebu ji jëm nañoo góorgóorlu ba dëkk ba am ko. yenn réalisation ngeen bari na sunu mouvement bi ñoo ngi woon ci éclairage public bi. ñoo ngi woon ci jeunesse bi wàllum sport beek yooyu ñu ngi ciy yëngu bu baax a baax a baax soo defee demee pire nga def rek micro trottoir nga laaj leen mouvement wala bi ndoy baan jiite lan la fi def ñoom dinañ la jox dinañ la defal bilan bi nga xam ne moom laa fi def barki démb Ndiaye piir ba ma juddoo ba léegi mosuma faa gis fauteuil dentaire ñun ku fa sa bëñ di metti teewoon ngay dem faje ji wala nga dem Thiès wala nga dem dakaar y même pas deux mois yóbbu naa fa fauteuil dentaire bu bees tàq boo xam ne installé nañ ko pare. fii quelque jour wala kii dinañ am technicien boo xam dina dem di faj waa pire ku sa bëñ di metti da ngay dox dugg ci hôpital ñu defaral la sa nga dem ñibbi loolu mosu fa am beneen bi mooy post de santé ba euh, daaw dugg naa fa ca maternité ba man ba ma fa duggee dama daw ndax dama rus parce dal bi baaxul woon table d'accouchement bi baaxul woon famille di ma ko chaque jour mais góorlu naa ba filmer nii après màggal gi avant gàmmu war naa leen a jox matériel buy tolloog 18 millions ci wàllu maternité te loolu man maa ko dem lijjanti ko ak sama ay partenaires mi ministères yi fi nekk damay dem ministères yi fi nekk c'est que nii dañu war a xam ni ministères yi fi nekk la Macky Sall def pour pour pour Sénégal la soo gisee ni sa dëkk bii amul table d'accouchement nga dem ministère de la santé bind leen expliquer leen ni sama dëkk amul table d'accouchement maire ba la waroon. mais man ma jóg wax ko sama dëkk amul ñu table d'accouchement wala mais ministère yi nekkul ñëpp am accès ci ministère yi. ah man ku ci amul accès man sa kii la man man dinaa jéem am accès. ñu bëri dañuy wax naa ñi bokk APR ñooy am accès. non man moom yàlla defal dogal na man bokkuma ci benn parti politique. bokkoo APR. bokkuma ci benn parti politique milité wu ci benn parti politique jënduma carte parti politique kenn mu suma fekkee réunion benn parti politique Sénégal la dëkk ci dëkk bi gis sama dëkk. am ay manquement yu baree baree bari su ma xamoon ni tey jii table d'accouchement waa Sénégal ñoo koy jox joxe damay dem ci directeur u ni ko sama waa dëkk amuñu table d'accouchement yii ngeen di joxe amuñu ko bind ko lettre jaarale ko fa ma ko war a jaarale ñu tontu ma su fekkee dañ may jox ma yóbbu sama dëkk baax na su fekkee joxu ñoom ma xam ne joxu ñoom ma dem wuti ko j'ai am naa yeneen partenaires yu nekk en Europe bi am même pas un dugal naa Pire 67 lalu hôpital distribué ko ci commune bi 67 ay lal yu bien ak ay matériel am naa beneen conteneur boo xam ne war na ñëw fan yi fan yi du yàgg dara yoo xam ne tamit ay fauteuil dentaire ci nekk ak yeneen matériel yoo xam ne pour pour pour pour commune bi la man ci yooyu laay dox man doxuma pour ay li may sama politique sama biir dëkk la la am la laa koy defee sama dëkk feebar na bari na lu fa manqué la fa manqué laay xool dem wuti ko indi ko ci dëkk bi loolu dong maire yi loolu dong la dañ lay fal pour xool li dëkk bi manqué nga dem wuti ko indi ko. kon daal natt nga sa bopp bu yaakaar nga ne waa Pire dina la jox maire bi. waa Pire ma nat man la benn affaire man je ñemewuma woon par exemple ñemewuma woon a bañ a nekk candidat dama ko ñemewul du question damaa bëgg a nekk candidat mais ñemewumaa bañ a nekk candidat. kon dañ la wax ne déposer sa candidature. loolu moom su bëgg naa nga jël sa micro bi nga dem doxantu pire nga laaj leen ko mais man sama ngor ak sama fit mayuma woon élection locale yi di ñëw ma bañ a nekk candidat yàlla nag mooy joxe ndam su ma su ma joxee ndam ma jéem a góorgóorlu ca dëkk ba def lu baax li nga xam ne moom la waa dëkk ba fale su la joxul ndam nga xam ni waa dëkk ba wóoluwuñu la pour fal la mais man li ma yéene pire ëpp na ay ay ay ay ay ay maires yi tu sais am député. ya bu nga doon premier député. lu ma Pire musul am député amoon nañ benn député bu fa dëkkoon bu ñuy wax Pirité Fall mais milité wul woon Pire maanaam doomu piir la mais dakaar la doon milité mais. doomu Pire bu milité à Pire ba nekk député musul am. kon yaakaar yaakaar nga ne di nga doon député Pire. musuñu am ministre bu dëkk piir li ñu manqué dafa bari de sëñ Moustapha Cissé daan ko ko dégg ñu koy yàlla yàlla na ko yàlla xaare àjjan moo nekkoon xalifa ba loo fa gis lu baax moom la ba mu demee ba léegi dañoo tumuranke looloo tax ñu ñun samp sunu ndënd jéem di ko jéem di jéem jaar ci tànk yam ñu jaarale woon amoon na ay bonne volonté ay moom parent ji bi jaañ ay bonne volonté yu bari yu fa nekk di def lu baax mais dëkk bi dafa laaj ñu am ku ñuy fëggal ci table yi di laaj sunu wàll wàllu waa Pire sunu la ñun. ci réew mi ci réew mi parce que damaa gis ni dese nañ ñoo jox sunu wàll. kon yaakaar nga ne mën nga dem ba doon peut-être comme député wala ministre piir Pire. non pour pourquoi pas doomu Pire dara jomb ko doomu piir est-ce que am nga ambition yooyu yow. dama ne doomu Pire loo gis ni naan tepp tepp a gën yu réet ñi ngi jëm ci maire yi suñ ko rombee étape par étape la fi nii maire yi ci leen nekk nañ dem ba génn ci ba pare. incha allah dinañ ci dem ci jàmm dugguti ci jàmm gagné ci jàmm. jërëjëf Ndoye Bane euh, Sénégal ñu ngi sant di ñu nga sa kàddu gu mujj. Ah, kàddu gu mujj gi mooy ndeg màggal gi yàlla na ci di yàlla def jàmm rek ba lu ñu fi ñaan yàlla nañ ko yàlla may doomu Sénégal bu ci nekkee yàlla na yàlla def góor góorlu nga jéem a góorgóorlu a am njariñ ma dama bëgg nit ku am njariñ am njariñ maa ngi koy wax benn jeune fii démb ma naan ko. da ngay jéem a góorgóorlu am njariñ ci sa bopp soo amee njariñ sa bopp ba pare nga jéem a góorgóorlu nga am njariñ ci sa biir kër soo amee njariñ sa biir kër ba pare nga jéem a góorgóorlu am njariñ ci sa biir koñ soo jógee sa koñ nga ji góorlu pour am njariñ ci sa dëkk après nga góorgóorlu jéem a am njariñ ci senegal loolu daal laay ñaax jeunesse yi genes bi te ñu jéem a dugg bañ a dugg ci lenn lu leen di tardeel nit da ngay jéem a am njariñ man ci loolu laa ne